mu ne nag lii nag yuridullahu bikumul yusra yàlla dafa bëgg ci ñun ak jàppandal yàlla dafa bëgg ci ñun ak facilité yàlla juuxuñu diine joo xam ne daf ñu indi jafe-jafe wala yuridu bikumul usra bëggul ci ñun ak jafe-jafe waaye nag nañu mottali ah, limu weer wi bu dee ñaar fukk fan ak juróom-ñeent nañ dem ba foofu buñ dee fan weer day kaamil nañu egg foofu waaye nag wala tukabbirullah ala ma hadaykum ndax lu tax njëlbeen bi yërmande la digg gi njéggal la mujj ba nag fukk yu mujjee mooy gore ci safara waaye nag dafa yàlla dafa bëgg loolu yëpp nag ñu làmboo ko kon bu ñu commencé rek ci fukki fan yu njëkk yi di góorgóor di jaamu yàlla buñ dee ba ci digg ba am na bëri ñu tekkee ko ñu sant wala Sylla wala Camara ñu def na koor ga jeex na am na ñoo ne bu ñu demee ci fukk yu mujj yi day day fekk ne fu mu nekk miin nañu koor ga léegi changé habitude loolu bi déedéet lañ doon def ci jaamu yàlla lañ doon def ci naafila lañ doon def ci saraxe lañuy def ci jàng alxuraan ak sàmm suñu làmmiñ sàmm suñu bët sàmm suñu tànk yooyu yëpp nag ak suñu nopp nañ ko góor góorlu ca première jour ba yéene ga ñu amoon nañ ko fas noonu ba ca mujj bés mu ñu ne te xool nañu weer wi de ah suba la ñu wari yàlla nee na jaamu yàlla ko noonu laa bëgg bëgguma ñu def ko ci début bi rek sawar dem ba ci digg ba tayal dem ba ci mujj bu jógaat déedéet mais nañu amee pas-pas ca njëlbeen ba nañu am pas-pas noonu ci mujj ga yàlla nañ ci yàlla defal ndimbal waaye lim ci yàlla laxas nag moo yéem mbokk yi nañu màggal yàlla kon weeru koor wi weeru màggal yàlla ci yàlla orientation yu ñu defal mbaax gi ñu defal yombal gi ñu defal wala allakum tashkurun amaana ngeen sant yàlla yàlla sant leen kon tamit fee wax na kum la allakum tattaqun finalité koor moo ngeen am ragal yàlla waaye fii na nga dem ba yàlla sant na la jaajëf dara gënul neex mbokk yi ngay liggéey ki nga xam ne mooy sa kilifa liggéeykat yi bari lool mu woo ñoom ñëpp ngeen ñëw mu ne la ah waa ji daal na ngeen ma seedeel daal xolam sama xol sedd na ci moom ndax liggéey bi awal na ko yoon man de naa ci moom tappal la garaat ñëpp di la ñe yàlla nag loolu la bëgg ci koor gi kenn ku nekk ñu dem ba àgg fenn foo xam ne ci mbaax ci joxe ci wax lu baax def lu baax jaamu yàlla yàlla boole ci nga xam dañ lay tappal garaat yàlla nañu yàlla tappal garaat mbokk yi mu wax nag aay bi nga xam ne moom lañuy ñuy tëjee wa iza saalaka ibadi yow yonent bi bu la sama jaam laajee anni man fan laa nekk man yàlla ndax dama sori fa inni qaribun ku jege la ujibu danaa wuyu ujibu danaa nangu daawata daa'i woote aji woo ki ma woo ngir wax ay soxlam dana ko wuyu de waaye nag ci chat isa daani nem woo ni ma ko bëggee fal yastajibu lii na ngeen wuyu yàlla woote yàlla wal yuminu na ngeen dëggal bi ci yàlla ci man mii laallakum boo leen ma dëggalee yarshudun ngeen nekk nit ñu jub nit ñoo xam ne teg ngeen ci njub yàlla nañ ko yàlla defal kon mbokk yi nga gis nag aay bu mujj bii nag la ñuy xaw a commenté tuuti wa iza saalaka ibadi anni waaw fu yàlla nekk kan na ko mës gis kenn mës ko gis bu la nit waxee yàlla fu mu nekk yow yonent bi ne ko yàlla de ku jege la waaw ndax nee nañ yàlla aqarabu min qablil warid moo la gën a jege moom rek moo jege sa buumu xol waaw kon nag jege gim ñu jege nag mooy wan ne jëf ju ñu jëf mi ngi koy gis lu ñu xalaat xam na ko xam na suñuy bëgg-bëgg xam na suñuy caay-caay ngeen baal ma ci kàddu gi mooy xam na suñuy dëng-dëng yëpp yàlla mi ngi ko xool waaye nag di jëflante ñun rek ci teraanga ak ci sutura xam ne yàgg-yàgg ni dinañu ñëw li ñu bëgg rek mu defal ñu ko fi mu bëgg dañ fa jaar te fa jaaree mu teg ñu ci yoon kon yàlla bu yàlla dañ duñ dolli sutura waaye mbokk yi ñaan lu am solo la jaamu yàlla yëpp ñaan la mooy jàkkaarloo ak sa borom won na ko duma dara jaam la compétence baa ngi fi xam-xam baa ngi fi mirit baa ngi fi am naa ñaari waajur yu baax am naa chance ci environnement bi mu juddu ak fi ma nekk yëpp waaye nag ah loolu yëpp nag yàlla am na ko am loolu ba pare te tekki wut am na ku am loolu ba pare te nangu loolu yàlla waaye su la yàlla baaxalee suturaal la sonno wax dëgg yàlla ne nag ma delloo li nga xam ne moom laa la defal. la in shakartum la azidannakum boo leen ma sante ma dolli leen demal nga wan yàlla lii yëpp yow a waaw wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun yàlla nee na binduma nit ak jinne lu dul ñu jaamu ma kon nag dañ ko won ak njaam dañuy wàcc ci kanam yàlla mbokk yi bu ñu rëy bu ñu bokkaale yàlla bu ñu dara jaral ci àdduna ñuy bokkaale yàlla koo jàpp ak ku mënti doon xamal ne yàllaa ko moom te lépp lu nekk ci moom yàlla ko def bu kenn wéeru ci keneen ku dul yàlla wa man yatawakkal allah fa xasbu ku wéeru ci yàlla yàlla doy la képp koo gis nag mën nga ko sopp mën na la orienté teg la ci yoon mel ni professeur ngay soppi ndax moo la gën a xam yoon bi waaye bu ko def yàlla mukk waaye nag booy ñaan tamit ñaanal yàlla tàll sa loxo nga ñaan gannaaw bu nga jullee farata pare nga ñaan waaw ñaan ñaan goo xam ne dangay ngay toroxlu sa diggante sa borom dara doxul sa diggante moom nga ñaan ko nag jàng faatiha jàng ayatu kursi qul wallahu ahad falaq ak naasi pare loo ca mën a tafal mbokk yi nga tafal ca gannaaw bi nga ko defee hadiya sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ndax mooy bunt yàlla yàlla rusale ngir moom kon nag nañuy ñaan waaye ñaan googu charte yi mooy isa daani ndax nit ñaa ngi may ñaan mbokk di ñaan yàlla te fekk yaa ngi dundeelu araam yaa ngi lekk riba yaa ngi wor ay nit yaa ngi ah, téye boru jaambur lewal ko yaa ngi nax yaa ngi wuruj ba pare bëgg tàllal yàlla nan yàlla allahuma yàlla ne na kooku duma ko nangu moo tax bëri na ñoo xam ne dañuy toppatoo ay alal dem ba màkk di war kaaba naan labbayk allahuma labbayk labbayk la sharika laka labbayk inna alhamda wa ni'mata laka wal mulku la sharika lak yàlla yebal al malayka laa labbayka lak wala saadayka lak wa maalu ko xaraam wa xajju ko xaraam yàlla nee na dikkoo waaw dikkoo nanguma la te tamit sa aj gi sa alal gi dafa xaram waaye sa aj gi tamit kenn du ko nangu misaal la woon ci aj waaye nekk doomu aadama ma ngay dund loolu kon mbokk yàlla na yàlla dolli sutura moo tax jamono ju nekk nit ki war nay ñaan war nay jéggalu ndax la muy def bëri na ci loo xam ne lëndëm lëndëm la la te loolu bu demee ba teg ko ci lo kanamu loxo yàlla boobaa yàlla da ko jéppi te yàlla du ko fay lu baax te dundam dina nax kon yàlla nañ ci yàlla musal kon mbokk yi lii indi woon tey jamono ji ñu toll nag jamonoy ñaan la lépp lu ñuy ñaanee nag ci alxuraan wala lu yonti mës a joxe wala nit ku baax mës a joxe te wax jooju boo ko xoolee muy delluwaat ci yàlla wan ne yàlla rek mooy yàlla dagan na ku la wax ne ñaan gi il faut mu nekk yoonti bi la mu bindoon nax na la ku la wax ne ñaan gi il faut mu nekk alxuraan nax na la yàlla dégg na làkk yëpp moo ko wax yàlla dégg na làkk yëpp li mu bëgg moo ñu ko mooma ak làkk goo ko mën a waxee yow yàlla yow laay waxal moom la nga wax ko olof yàlla yàlla nga ñu suturaal yàlla yàlla bu ñu yàqu yàlla bu ñu yàqule bu ñu am yàlla ñu am yàlla bu ñu ñàkk yàlla bu ñu ñàkk yàlla yàlla dina xam ne moom mii ngay waxal kon mbokk yi nañuy ñaan nañuy ñaan te nañuy wóolu suñu bopp ne lii yàlla waxoon yonent bi ud'uuni wa antum muqinu bi ijaaba na ngeen ma ñaan te na ngeen wóol ne man dinaa leen nangul waaye di ñaan yàlla par di am sikk a ah mun ko babaa nga bàyyi ko jarutu ko kon yàlla na yàlla doon li sutura lii ci ajuma gi wasalaam